buntu anami julli jullik farata am na juróom-ñaari anam yu ñu ko war a defee nga xam ne dañu ko war a toftale itam ñeenti anam yu njëkk ya dafa war ñett yi des dañu ko sopp yi nga xam ne dañu war ñoo di bi ci jiitu taxaw bañ a weeru toog taxaw weeru toog toog bañ weeru toog dañu leen a war toftale ci lu wér soo ca manee benn def ba ca gën a suufe julli ga yàqu na ñett yi nga xam ne dañ koo sob nag ñoo di soo lottee ci ñeent yu njëkk ya mu julee wetu ndejooram su ko mënul mu jullee wetu càmmooñam su ko mënul mu jaaxaan njëkk toftale ñetti anam yu mujj ya du yàqu julli wéru gi nga xam ne mooy yàq julli ku mën a taxaw moo wiiru ci loo xam ne bu daanoo mu daanu su fekkee bu loolu daanoo yi du daanu moom kon wéeru ga dañu ko sib rek gàpparu naafila dagan na ci ko mën a taxaw waaye nag genn wàllu yoolu ku taxaw lañu koy fay dagan na ci kuy naafila mu toog ba mu yàgg mu taxaw wala mu taxaw ba mu yàgg mu toog waaye nag su fekkee dafa yéene woon taxaw naafila ga gépp ba muy tàmbali kon tere nañu ko mu toogaat gannaaw loolu